c'est la référence. Euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM euh, kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble imaam Assane Cissé fii ci médina bàyyi euh, dal leen ak jàmm ma jukki leen li gën a fës ci bopp xibaar yi songu ko dóor ko sëtu xalif général des Mourides di wuyoo ci turu Serigne Mourtala Mbacke gannaaw bi nga xam ne nag ay Baye Gaye ñoo ko daal di songu dóor ko laata ñuy xam ne ne moom sëtu Serigne bi la dinañ ci ànd ak Tafa yi limu gouvernement gouvernement bu yees bi Kaolack nag amuñu benn ministre boo xamante ne bii euh, fii la daal di bàyyeekoo te gis nañ ne ay boromi xam ñoo fi daal di nekk ñi nga xam ne nag ñoo am xam-xam lool ci wàllum politique bi indi nañ ci seen gis-gis daañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne euh, gi yegg si na nag marché bi lépp a seer lépp luy jaay sa jaba euh, dafa daal di seer tëyër yi tamit nag gisaguñ seen bopp ci lu jëm ba léegi rek ci wàllum korite gi Alioune Badara Diop daañu ca dikkal bu ñu ca noppee daañu ca toftal xibaaru biti réew soxna Ngoone Ngoné Ndiaye uh, tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane uh, toftal ca Kooru Gay ak Baara Diop ndar keppale ko li ci yéene kaay yeeg Seydina Omar Cissé mbokk yi lii ñoo fi nar a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxi lu tuuti ma dugg ak yéen ci faram-fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon. bàkk ba jib na Alfayda FM kàddu gi di bàyyeekoo ci Medina bàyyi ngeen koy teewloo nag ci diwaan yu wute ci Sénégal euh, njàppalu du sekk keneme la ñuy daal di séen ca machine bi euh, tey nag di altine juróom-ñetti fan ci weerum avril atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent mbokk yi ni ma ko junjee woon ca bopp ba noonu lay duggee ci yaatal week faram fàcce bi euh, Serigne Mourtala Mbacke nekk sëtu nag xalif général di Mouride Serigne Mountakha dañu ko daal di songu dóor ko. ko naka daal di koy gaañ laataa ñuy xam ne ne moom naka moo nekk doomu taaw xalif bi foofu li nga xam ne moo di ca diwaan bu tuubaa laataa naka ñu koy yóbbu ca bërëb bu fajokaay ba lan moo daal di undu naka ñu daal di koy songu ñu teewlu ci Mamadou Moustapha Mbaye ca Touba. lu doy waar am ci dëkk bu sell bi di Touba ne benn sëtu xalif général des Mourides Serigne Mountakha moom la ay Baye Guèye ay taalibe Cheikh Adama Guèye jàpp dóor gaañ ko ba nga xam ne daal gis nañu mbir mi wax nañu ne moom Serigne Mourtala Mbacke sonnoon na loolu laataan koy yóbbu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba mbir yi nag ni mu demee weesuwul Serigne Moutala Mbacke moomee bi nga xamee ni kon juróom benn waxtu jot na jël na tali daaru minam bi ngir dem ñibbi waaye nag ci yoon bi ci la dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe seen Cheikh Adama Gueye ñu yore ay ndogu di ko bi nga xamee ni kon mbir mi am na ci lañ wax ne ci la yore otoom di klaxonné pour nu bàyyi ko mu jàll waaye loolee mujjul sotti ci la génn waxanteeg ñoom ba mujj gi daal ñooñee daal ci kawam mu am ci ay gaañu gaañu ci bi kenn ci ñi nga ñoo nekkoon ci mbooloo mi daal di koy jël ànd ak moom yóbbu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba foofee lañ ko fajee gannaaw gi nag ci la taalibe Cheikh Adama Guèye yi xam ne kii nu doon jàppante daal weesuwul doom ci Serigne Kosso Mbacké moom mi nga xam ne mooy taaw xalif général des Mourides bi loolu amee ci la délégation jóge ci waa kër Adama Guèye ki ko jiite di Serigne Abdou Samad Guèye moom mi nga xam ne doom la ci xalif Serigne Cheikh Adama Guèye dem seeti Serigne Kosso Mbacké waxtaan ak moom waaye ñu ñuy xamal ne waxtaan woowee daal mel na ni jurul li nga xam ne moom lañ doon xaar ndaxte famille Mbacké Mbacké bi daal ñoom mujj nañu déposé plainte ci parquet bu bel jamono ji ñu wax yenn ay kilifa ñuy dox ay tànk jàmm waaye ñu ngi ni xamal ne boobaa léegi dara sottewul xanaa toog di xool ngir xam fan la wànnent di mujj ki gëtëm Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ngeen koy dégloo ci diwaan yu wuute ci Kaolack nangaan dañuy daal di dem nag ci mbiru tabb nguur gu yees gi politique ak mbir ya ca daal di toftalu li mu gouvernement bu yees bi nag am lu toll ci ñaar fukki ministre ak juróom juróomi secrétaire d'État ñoo ca daal di nekk ñi nga xam ne naka ñoo di sénégalais nangul nañ ñi nga xamante ne ñooñu nañu tabb te itamit nag gis nañ ne ay boromi xam-xam nañ ñi nga xam ne nag ñoo faytee eh, ci diwaan bi itamit nag nekk boromi xam-xam ci wàllum politique yàgg ci lool nag daal di ciy wax seenub jàngat ñu teewlu ci Cheikh Tidiane Diagne ñaar fukki ministre ak juróom juróomi secrétaire d'État boo ko boolee mooy lu mu gouvernement bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko daal di annoncé ni ko ayuba sabale ñu génn moom premier ministre bu Sénégal la bu ñu xoolee nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñu mel ay profil yu baax la Jokal Gajaga yàgg lool ci langue politique gi nekk tamit ab kàngam ci kuje gi nekk ci Kaolack moo ko jàngat. am na ci ñu xam ci gouvernement bi ñoo xam ne sénégalais yi xam ko mel ni le procureur Ousmane Diagne ku ko fal ministre de ci ànd d'accord ci xam-xamam jaar-jaaram dëggoom ak li mu wane ci réew mi peut am na ñeen ñoo xam mel nañ noonu ci biir waaye gannaaw mënuma lim ñëpp am na ci ay compétence yu ma xam yoo xam ne xam naa ne ay compétence lañ waaye est-ce que compétence rek sa suffit pour nga diriger un département mbaa nga diriger tout un pays gouvernement bi ñu mel nag ñëwul pour li nga xamante ne moom moo di xeex wala sax violence ak yeneen i mbir yoo xamante ne jamono ji mu ngi am ci réewum Sénégal li ñu war a def rek moom moo di liggéey te dara waru cee jiitu wàññi dund gi jokkeel gajaga gisee ni ñu mel la. biñ gagné élection yi dama leen ma leen félicité dama engagement yi jël ba Sénégal yi gëm loolu fal leen ci ñu jéem a taxaw toppatoo ko ba Sénégal bu ci nekk nekk ci jàmm. bu fekkente ne nag am na ñuy ŋàññi ak itam di ñàkk rafetlu gouvernement bi nga xamante ne am na ba noppi te gisuñ ci benn doomu Kaolack boo xamante ne takkal nañu ko ndomba tànk li nu mel wutewul dara ak koom-koom gi nga xamante ne Kaolack war na koo xaar ci basiru Bassirou Diomaye Faye waarado ñoo gisee ni nu mel Mouhamadou Mamadou Mbeng mooy président d'honneur bi ci réew mi. ministre de la région su ko xas ba doon du ne man fii laa far fii laa far loolu lañ doon indi politique yi su ñëwee ne nañ jël ci région bi parce que soo jëlee diw il faut nga damay dégg nga exemple madame tel wala nga fay monsieur tel parce que ci foofu la ne soo ko nekkul doo am clientèle loolu amul mooy li may wax rek ñoom seen logique bi bu fekkee Sénégal nag li ñuy xaar ci nguur gi nga xamante ne moo fi nekk jamono ji bëri na lool bu ñu sukkandekoo ci responsable politique bi ñuy àndal ci waxtaan wi mooy président mouvement taxawu Sénégal ci région bu Kaolack. Abdoulaye Wade ba mu ñëwee vingt cinq ministres la defoon di ko yokk ba mu yegg fa mu yegg Macky Sall ñëw def vingt cinq ministres di ko yokk di ko yokk ba mu yegg fi mu yegg kon ñoom it bu ñuy def vingt cinq ministres bala ñu mën wax rupture dañuy toog un an mbaa ñu toog yi nag bi ñu ko taxawalee ay mbetteel am na ci bu baax baax xamante ne jàppoon nañu ne dinañu falu te fare woon ci réseaux sociaux yi wala sax ci rajo yi ñoom ñëpp gisuñu leen ci liste yi li askan wi di xaar nag di liggéey googe ndax dina amam déet li ci kanam rawali gët. Euh, développement amul nag ci Kaolack diwaan bu siin Saalum yi tamit nag gisuñu benn ministre boo xamante ne bii tabb nañ ko ci tey tamit nag ay boromi xam-xam boromi kàmgam ñoo daal di faytee ci diwaan bi di kàddu nag jokkeel gajaga mouvement taxawu Sénégal ci micro Cheikh Tidiane Diagne. Kaolack euh, te loolu mu ngi commencé depuis alternance en 2000 ndax am na jëmmi jamono yoo xam ne Kaolack Ndangaan bii amoon na juróom-ñaari ministre ak président de l' assemblée nationale booba région Sine Saloum la woon tey suñ toogee ba nga jël région Sine Saloum muy Fatick muy Kaolack muy Kaffrine kenn amu ci ministre loolu doon na loo xam ne wax dëgg yàlla pour ñun daal ah rafetlu wuñ ko d'accorduñ ci aussi ñi ko def nag ñoo jël seen responsabilité tax ñoo xam li tax ñu def ndax kuñ fal yaay président de la République yaay dogal nit seet li nga dogal ñu wax ci seen xalaat waaye daal Kaolack daal la région de Kaolack naturelle de Kaolack Kaolack mérité wul mu am troisième alternance amul doomu Kaolack bu ci nekk ministre de la république te kenn du na amuñ engagement kenn du na amuñ compétence kenn du na amuñ jaar-jaar loolu moom métti na ma trop c'est-à-dire kuñ fal nag yaay seet nag la la day sa ak la nga yaakaar ne soo ko defee liggéey nga def ko kon sur ce plan là man awma lu ma leen di reproché li nga xam ne kontaan naa daal mooy fexe na ñoom ba opposition bi yëpp tey féete nañ benn kujj parce que koo xam ne opposé kon tey ñoom ñiñ jël ñoom lañ fal ñoom xam ne yàlla rek fi nekk parce que nit mën naa liggéey réew te nekk ci biir opposition kon yaakaar naa bu ñuy wax sax ñeneen lañ wax mais taxawu Sénégal moom xamuñu transhumance duñ ko jéem duñ ko def non yokkul da ngaa wàññeeku su nekkoon ne léegi da am ay DG am ay ministre ñuy dimbal ay nit nga toog ba loolu te amatoo ko kon ña doon dimbale tey waxuma dimbal yëkkati xaalis di may ñi dama ko ñëw mais création d'emploi xale yi a liggéey a d'honneur bu rajo nag àdduna nag ci tabbub jëwriñ yu yees yi lee anam bi nga xamante ne bii noonu la ko sénégalais yi gisee anam yu wuute eh, ci nag lu jëm ba léegi rek ci tabbub jëwriñ yooyu lee kàddoom nag ñu lu ko ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne seet nañ ne wax dëgg yàlla li ci nekk li ci ëpp ñoom ñuy wax ñu ngi ci changement bi ñuy def parce que bëri woon nañ am na ñoo xam ne ñu ngi doon dugal sax ci kii di def influence di wax diw nommé nañ ko ministre jigéen nañ ko lii jigéen ko lii fekk loolu rebondir a ah, yal na yàlla dimbale leen ci loolu mais entre y a un préjugé favorable ne jugeons pas trop vite diggante lii laa a def ak lii laay def leneen xam nga wax ko toujours ne leen pouvoir dafa am ay réalité ñu ngi ko ubbi démb rek ñu bëgg a ci yëf yi nañ leen rek li defa ba mu dem nañ ak li ñuy wax kenn mënagu ci wax dara ñu déglu leen. am na ñuy wax ne amul parité. waa parité xam nga ci logique est parité mës na am ci gouvernement beneen. dafay joué ci parité rek est parité am na ci gouvernement beneen gouvernement bi passé bu Macky yi bu Abdoulaye Wade yi est-ce tam moom fi def parité est-ce que ay jigéen ak góor ñoo ko bokk. xam nga parité dem la pour fexe jigéen ñi dem mën a dem mais am na lépp dalee parité mooy mérite su fekkee ñu ngi xool su fekkee ne amuñ benn fii boo xam ne agronome la wala nangam xam na kenn koo xam ne mooy répondre ci critère bi moo ëpp solo ñuy wax kii jigéen la wala kii góor la parité am na solo motiver jigéen ñi la pour ñu dem ñuy toog di jàng scolarité des filles ñu ngi koy def jigéen ñi fi ne nekk koo ko xoolee dans les secondaires daanaka ñoo ëpp góor ñi waaye est-ce que ñooy mujj ëpp góor ñi ba ba ñuy génn yooyu yëpp dafa am solo man je suis d'accord pour une ñi liggéey ba retraite nag sonn nañu ndax li ñuy jot bariwul euh, te ñu ci ëpp ci ñoom nag ay boromi kër nañ te nag ñu ngi sàkku ci nguur gu yees gi jiite ko di président Bassirou Diomaye Faye mu jàppale leen ndax soxla nañ ko bu baax a baax ci kàddu Papa Ibou Diouf bokk nag ci association des retraites bu kaw Kaolack euh, ci micro Cheikh Tidiane Diagne. gis nañ ne aussi gouvernement ay xale rek a ci nekk. te nee nañ ku ci nekk domaine bañ la dugal am nga ci compétence en moom vraiment seetlu nañ ko wax nañ ancien combattant yi ancien ay retraite lañ retraités Sénégal niñ sonnee yaakaar naa ni gouvernement war na cee jublu waroon na sax am un ministère des retraités parce que sincèrement retraité ngay liggéey pendant trente quatre ans trente cinq ans sa xaalis ñu koy jël di ko investir ba pare di la fay ay salaires yoo xam ne ay trente mille ay soixante mille di ci gën a bëri la presque ay deux cent mille la ñu parce que niñ calculer retraité dafa xaw a doy loolu daal moom gouvernement bi ak dette viagère doon na gën a baax waaw yaakaar na parce que boobu boobaa gouvernement da ci mun dugal loxo bu baax a baax a baax waaw day doon lu bees même bu nekkul loolu sax nañ ñu dugal affaire sociale rek waaye utal ñu benn direction boo xam ne direction retraité la comme ni ñu defee dette viagère ñu gën a ñogal yëf yi rek comme dañu ñogal fu nekk dañ ñogal yëpp et puis bu ñu bañ ñoo fàtte ci quoi pétrole bi pétrole bi comme dina ñëw ak or beeg yooyu wax dëgg yàlla war nañ ci xalaat màgget yi waaw ci naka xam nga ñun léegi fi mu ne nii daanaka sax màgget yu ci bëri ñoo yor seen kër yi màgget yu bëri dañuy participer seen kër yi am na ci ñoom ñoo xam ne yàlla def na seen doom yaa ngi leen di jàppale mais les quatre vingt daanaka seen kër yi ñoo ko yore kon nag gouvernement bi aussi war loolu même bu nekkee ne portion bu infime nga xam moom la ñuy def. Euh, Moussa Balla Fofana mi jëwriñ nag bu ñu dénk urbanisme et collectivité territoriale moom nag yaakaar am na ci moom ndax itam nag gis nañ ne daal xam na solo bu yi am waaye tamit nag doon na koo xamante ne bii nekkoon na maire loolu moo tax nag mu war a doon jëwriñ ji nga xam ne moom nañu dénk mbir moomulee euh, gis-gis bi nag ki nga xam ne moo di lan Ousmane Badji nekk nag charge de communication bu CNTS bu Kaolack àdduna ci ci micro Cheikh Tidiane xam nañ ko peut ci discours yi nga xam ne moom la yàgg di tenir ci plateau télévision yi mooy Moussa Balla Fofana moom moo nekk suñ ministre bu bees bi et d'après li nga xam lañ ko mooy nekk na koo xam ci moom te gëm nañ ne li nga xam ne moom lañ ko dénk nekk na la nga xam ne mën na ko am na xam-xam gi tax mu mën a jëm ca kanam kon donc yaakaar nañ la nga xam ne moo di injustice te ñu ko doon dund def boobu ba léegi dilatoire doon ci am ba tey ji yàlla def ni ni ñu nekk ci nguur gu bees gii moom mu nekk suñu ministre gëm nañu dina sotti mais li gën a tax sax ñu gëm ni dina sotti encore moo di suñu grève bi tar gamba jamono yam amoon association des maires du Sénégal ak waa réseau des élus locaux du Sénégal bii mu nekk boo xam presque ñu nekk ci pouvoir ñoo fa ne bale ñu nekk ci opposition ña nekk ci pouvoir nag nekkoon ci AMS bi yaakaaroon nañ ci ñoom jàpp ne dinañ jàpp ci combat bi ba tax injustice bi ñu réparé ko gënu ma ko xam sénégalais yi tey ji les maires yi seen salaire yokku na yokk boo xam ne xam naa ne ci élection yu ñu ñay présenté wu su nekkee dëggantaan defar dëkk bi taxu leen a jóg dinañ bëri waaye ñu gis ni ak ñoom sottiwul mais ca jamono jooja ñu ko ci motoon la nga xam ne moo tax ñu teg leen ñun suñ grève bi waroon a jeex booba léegi yàlla def na tey ji ñoom jamono jooja opposition lañ ñëwoon seen baat mënul woon egg ci kilifa gi ba tax mu kilifa yi tey moom mi nekkoon président tey moom moo nekk premier ministre kon gëm nañ ni moom ni mu gisee xam solo mairie parce que li tax tamit grève bi yàggoon mooy mairie dañ ko yàgg a jàppee comme boîte politique mooy la nga xam ne am na te moom jamono ju muy nekk maire xamoon na solo gi nga xam ne moom la collectivité territoriale yi nekkoon te yàlla su ko defee ministre ñun dañoo jàpp ni suñu aajo war na mun a feju suñu soxla war na mun a feju li nga xam ne moom lañ yàgg joytu nekk na la nga xam ne day sotti benn yoon augmentation rek lañ mës a laaj ndaxte dafa nekk la nga xam ne dañ ko def généraliser ko ba tax képp kuy liggéeykat ci service public am nga ci wàll. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. mooy la référence ci tabbub jëwriñ yooyu sax nañuy desandi ñi nga xamante ne ni nag ñoo di gis-gis yi ñu ci daal di am nag gis na ne uh, boromi xam-xam dong nag nañu daal di tabb te doon nañ ñoo xam ne it tamit nag ràññeewuñ leen bu baax ci wàllum politique te it nag yàggaar yàq nañu di bay seen waar nag ci mbir yi nga xam ne uh, si nañ doon yëngu ci biir réewum Sénégal Alaaji Fàllu Ba opérateur économique ci kaw Kaolack àdduna ci ci waxukaayu Alioune Badara Diop. waaw jàngat bu njëkk bi moom ak xel mu dal. mun naa wax ni dans sa globalité. ci ministère yëpp man gisuma benn ministre boo xam ne dañ ne jox nañ ko ah par rapport ci commentaire yi ma dégg tey ak ñi nga xam ne nii yàllaate na xam naa leen kenn ku ci ne fañ la jox yaakaar naa ne lañ la fa dénk mën nga ko dama ciy citer rek ñaari ministères yi nga xam ne nii ñoo gënoon a poser problème fii ci Sénégal muy ministre de l'intérieur ak ministre de la justice yi ay politiciens yàgg koo yor lëngoo ak euh, pouvoir bi fi nekkoon ah di néewal doole seen ay opposants ñun ah, am na lu ñu xam ci moom Serigne Gueye Diop muy koo xam ne nag yàlla dafa te da xaritu président Serigne Mboup la moom ndax ñëw na Kaolack événement bu ma sa am Kaolack daan lu ci ëpp daf daa jógee Sandiara di fi ñëw mais ma wax rek ci Serigne Gueye Diop Serigne dafa nekk nit koo xam ne ni ci agro agroalimentaire agro agroalimentaire daf ci def lu rëy a rëy xanaa benn attente boo xam ne lu ñuy ñaan la te it en connaissance de cause lii may wax man xam naa ci dara maa ngi koy wax secteur u Sénégal gën a pëccëxu muy transport ak commerce ñu fexe ba réorganiser transport nañu fexe ba réorganiser commerce commerce de wax dëgg yàlla dafa occupé ci dëkk bi lu important bu ñu ko organiser dana jëriñ dana gën a jëriñ ñi féete ci secteur bi dina jëriñ état bi te yaakaar naa ne nee mu organiser Sandiara ah wax dëgg yàlla euh, mën na ne organiser industrie dans sa globalité au niveau du Sénégal mën na organiser mm-hmm. commerce te loolu dañ ci am yaakaar ndax liñ ci amee yaakaar mooy mm-hmm. ah nekkul loo xam ne nii da koo xamul lum xam la mën na ko gis nañ ne lii war na koo def kon ñu ngi koy ñaanal waaye foofu liñ ci wax ci affaire chambre de commerce rek mooy na gën a yokk seen ay compétence na nekk ay interlocuteur direct euh, kuréel yi nag bëri nañ ci biir réewum Sénégal ku nekk nag da ngay dajaloo taxawal sa kuréel waaye chambre commerce nag état bi ñoo ko taxawal te tamit nag lañ cay dugal fii nii ci diwaan bu Kaolack nag la ñuy liggéey sax moo ko daal di ëpp di wéyalu kàddu ji Fàllu Ba euh, ci àddukaayu Alioune Badara fii nag dëkk bi secteur privé bi dafa bëri ay kuréel kuréelaan yooyu kuréel kuréelaan yooyu yooyu gis nga kuréel kuréel daan yooyu na fexe ba régler ko nu mu koy régler fii kenn mënul empêcher nit mu def ay association mais na xam ne chambre de commerce mooy institution bi nga xam ne nii état moo ko teg nekk da presque mun naa wax ne démembrement de l' état la mu ndax état moo jël ay sañ-sañ jox ko ko kooku ñuy def ay jéego yoo xam ne nii bu ma joxee exemple rek ci chambre de commerce bu Kaolack chambre de commerce bu Kaolack ñëpp xam na ne fonds de dotation bi ko état jox par année trente millions rombu ko yow trente millions yooyu donc sa masse salariale mensuelle rek xaw naa mat loolu nga am budget boo xam ne daanaka jege na un milliard ci sa pexe bopp kooku yaakaar naa ko yokk say compétence yokk say ressources humaines parce que man dama ne dafa bëri kuréel kuréelaan yoo xam ne associé ak ay kuréel yu caaxaan yoo xam ne du dara na renforcer chambre de commerce indi fa ay euh, nit ñu xereñ mu dolli seen i compétence liggéey yooyu nga xam ne dañ ko waroon a def parallèle chambre de commerce di ko defal loolu daal luñ koy yóbbantal waaw njëg yu seer yi dara waralu ko lu dul manque d'organisation rek ndax kenn xamul kan mooy kan goo xam détaillant bi grossiste bi grossiste bi te loolu yëpp wax dëgg yàlla dafa war a leer ci bopp état bi ñu xam ne kii grossiste la am na kattan di mën a importer di indi kii demi grossiste am na kattan mën a dem ci grossiste bi jënd lu bari ñëw teg détaillant bi dooleem dafa xaw a limité mu mën a dem jënd yooyu yëpp ñu catégoriser ko mu nekk loo xam ne nii dana yombal liggéey bi waaye li ma wax ne pëccëxoo bi ci commerce da am ndax ñu bari da ngay dégg ñu naan ne njaay mu seer njaay mu seer defe ne ay commerçant la déedéet bu ñu nee événement na xam nga koor événement la ñu bari dañ defee ne korité ak tabaski mooy événement mais koor événement la bari na ñoo xam ne nii du ñu yënguwuñ ci lenn duñ commerçant duñ dara mais bu koor ñëwee dañuy dal di si dugg lañ doon def activité bañ doon def dañ koy bàyyi ñëw dugg ci njaay ma xam nañ ne grande consommation mooy am période ramadan ñu jënd marchandise yi soit di ko denc di ko jaay ay yenn prix yoo xam ne joxoñ commerçant yi loolu yëpp manque d'organisation parce que bu fekkoon ne yow mi bëgg a jaay nañ la jaay war a jaay lii du am. Ibrahim Thiam nag mi nga xamante ne moo daal di yore revendication syndicat autonome euh, cultivateur bu réewum Sénégal nag àdduna ci jëwriñ yu yees yi nga xam ne moom nañu daal di dénk wàllu mbay mi di xam le nag doonut koo xam ne daal moom am na yaakaar bu baax ci moom ndax nag ki ñu soxla ci wàllu mbay mi mu war a doon nag ki nga xamante ne bii borom yërmande la ñu teewlu ay doom ci micro Alioune Badara Diop. waaye fi nga xam ne fi lañ gën a amee fi li ñuy wax mooy ci wàllu ministre bi nga xam ne moom la ñuy jox ci wàllu agriculture ministre bu jafe lañ ko jox ay jafe-jafe lañ ko jox mu doon koo xam ne ñun biñ laajtee CVM moom bancaire la ab bancaire nag moom liñ ci ragal mooy xol bi dafay dëgër kooku da bi nga xam ne da ko fekk mu am ay jafe-jafe ay tolof-tolof nekk fa te béykat yi soxla léegi jiwu soxla engrais soxla matériel dafa doon daar daar boo xam boo xam ne képp kuñ ko jox da nga war a waxtaan ak nit ñi am réew la tànn la jox la lañ la jox te yaakaar liñ yaakaar dañ ciy bëgg a jot jafe am ci diggante état bi fi jógee yi fi nekkoon ci wàllu semence ñi ko daan jënd nga tey problème boobu nga ko bëgg a rib bi béykat bi moom mooy son tollu kon nag doomi baykat di daj te xam na métti baykat di daj kon buñ tolloo ci jiwu ci waxtu wii ñu toll dañoo war a waxtaane jiw nu mu gën a gaawee dañoo waxtaane matériel nu mu gën a gaawee dañoo war a waxtaane nu mu gën a gaawee baykat yi nag mënuñuy toog mu ngi nii lañ xam ndax lii dundal réew mi ñun ñoo koy a nekk kon di nag moom na woote waxtaan ak nit ñi te lii waxtaan rek moo koy defar ndax dafa fekk lobby boo xamante ne dafa am ñoo war ñoo war a mën a am kon lu mel noonu bu amee ci dëkk dañoo soxla dëkk bi mu tegu ci loxo yoo xam dana am yërmande ñu teg ci loxo yoo xam ne dana xam ne daar daar lañ jublu mooy dañoo baa ngi dugg fu nekk ceeb a ngi jaay ji jar fu nekk te amul commission diwlin mu ngi jar lu nekk amul commission commission yooyu lañ bëgg ñu dindil ñu ko mu jeex fi tàkk ndax intermédiaires yi mooy li nga xam ne tey moom mooy liy jël affaire yi bu nekkee nag dañoo dem ci mbirum gros producteur xam nañ jafe-jafe yi nekkoon ak ni ñu ko daan joxee mais dañoo soxla petit producteur bi ñu jox ko li mu petit producteur bi ñu jox ko matériel bi mu soxla kon loolu bu amee ñun li ñu mën a wax rek mooy petit producteur moo ndax doonul koo xamante ne bii xam na mbay lool ndax itamit nag wàllum banque lañ ko daal di xamee te war na ñoo dénk wàllum mbay mi koo xamante ne baykat la waaye ku am tam nag yitte ci lu jëm nag ci wàllu mbay di wéyalu nag kàddu Ibrahima Thiam ñu lu ko daal di dellusiwaat xam nga doxalin wi bu nekkee bassin arachidier bi fi mu nekk da nga ko defal gannaaw xam nga ne li ngay wax da nga ko wax te xamoo ko ndax buñ toogee ci xoolu gerte nga tànn nit ko war a jiite ndax ñi même ki sax buñ ko tànnee te du ko waroon dindi mais nit ki nga tànn ci ab kooku ñun moo ñu jaaxal kooku moo ñu soxla li nga xam ne muy Kaffrine Koungheul muy Tamba ba ñun dañoo soxla boo ñuy tànnal nga tànn ñu koo xam ne daf doon dem ci tool yi kon lu mel noonu bu amee ñun daf ñu jaaxal danañu tiital waaye nag dañ koy araftu wan ko ne fi nga xam ne tey ñetti ministre ñun xam nañ ne kon réew mi du réew waaso réew mi du réewum xeet réew mi réewum Sénégal ñëpp ko bokk bi ñuy wote Sénégal bu njëkk baykat yi dañ daan wax ñoo doon fal président bu fi nekk bii nag a a wote ñun béykat yi kon dañoo mel ni ndakaaru tey wote comme ñoom maximum fal président bi xam nañ liñ xam bëgg nañ liñ bëgg suñ doom dañuy jàng dañoo a dóor dara ci dëkk bi kon ñu mel noonu ne dana xam li dëkk bi ko dëkk Saloum tànnoo kenn ko dëkk Fatick tànnoo kenn ko dëkk Kaffrine dama ne yow mel na ni xëy na mbay de da ko tudd waaye xëy na xam ndax xam nga li ci biir yëf kon nag càmm gi ak napp gi ak mbay mi dafa sooxe te ñooñu mën nañu yor Sénégal duñ soxlaal benn réew dara kon loolu buñ ko toppatoon baykat toppatoo baykat dinañ dégg seen bopp bu baax baykat yi lii soog sàmmkat yi lii soog nappkat yi lii soog jëriñoo suuf si jëf jël ñaq di torox booy ñaq a walaa kaara loolu da doxalu réew kanam kon réew mi fi ñu toll dañoo bëgg ñun bu ñuy jëf di terlu di ñaq di trangal man ci aji màkka man cee takk jabar man cee jënd ay oto man cee am ay kër yu baax mais heure booy bay rek yow génne asaka sakkal dañ la ku génne sarax sakkal dañ la te fu ñuy campagne yeb la ci oto wàcc ñu jox la deux mille francs lan moo ko waral mooy ñàkk na politique jeex a dem moom itam mu bu xolam yaatuwul du fi def dara kon nag booy dikk ci place di fa fekk ay fayit yoo xam ñun de xam nañ ko la fa nekk ñun xam nañ ci biir ministère diggante opérateur yi diggante huiliers yi muy Copéol Wawo Racia Seña Sayate ak Sonacos ñoom ñëpp ñun xam nañ ñu tënkee gerte gi te ñoom ñoo toroxal baykat yi gi taxaw gën a toroxal baykat loolu dañ ko war a tas ñu toog waxtaan ak baykat yi joxe seen xalaat xam ne ñun lii lañ bëgg ñu xam ne fii lañ bëgg Euh, kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bi di Medina bàyyi ñu dem nag ci wàllum korite gi nag waxtu jot nag ñi nga xamante ne ñoo di tëyeer yi euh, waajal nag korite gi ñoom nag ak ñaw yu yees yi nga xamante ne bii moo nekk ci jamono gi mu mel ni nag ba léegi gisaguñ seen bopp ci li nga xam ne moo di korite gi di jub si ndax lu ko waral mooy mbir yu seer yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi ñu ànd ci ak alimba Badara Diop. muy guddi wala bëccëg duñu noppalu ñoom tëyeer yi nga xam ne jamono ñu toll nag moom seen fit dafa dafa rëcc ci waajtaayu lii di korite bi nga xamante ni lu néew ci ay fan rek moo ci des. jamono tool nag donte sax ñëw yaa ngi ñëw wante moom xaalis moom amul liñ ci gën a ràññee nag moo di xale yi ñoo ëpp li ñuy ñëw Ndiaye Doss moom mi leen ab tailleur la adduwaale na ci tendance ren bi. waaw instant bi moom euh, ñu ngi sant yàlla daal ñëw moom wax dëgg wax dëgg daan gën a bëri mais ren moom xam naa ne jamono bi demee la mais nag euh, ñu ngi mos ndànk-ndànk a moo gën daal instant bi de Korité moom xale yi la nit ñi gën a jël quoi xale jigéen yi daal ñoo gën a ñawlu ak xale góor yi noonu des fois nag ñu ñawal tuuti mag mais xale yi daal si gën a mën a ñawal instant bi instant bi rob xew na tay <laughs> mooy toog instant daal rob moo gën a xew ñu fekk ko ne muy concentré bu baax a baax ci machine am jim mbaw moom la di àdd ci wàllum tàngoor bi ak liggéey bi méttiwaay bi fokk natt wees na ko waaw wàccaay bi waaw ñu ngi ci ba jéggi pour nga ñaw problème la coppite nag day faral di am ci seen wàllum waxtu liggéey si jamono ji nga xamante ni nag ñaw yi moom bëri waay fokk natt wees na ko daam njaay cinq heures du matin la ñu wàcc neuf heures ñu xëy si sonn rek ah géwél ndànk ndànk rek korité gi moom ñëw rek moo am ñëw mag moom ay vaal ak ay lafeya ak ay borode moo am rek mooy loolu waaw ñu ngi si gis suñu bopp déedéet ñu ñoom duñ dajal ñëw ma waaw kon wàccaay bi mooy dajal ma rek la nit ñi amuñu xëy koor bi sooy na koor gi dafa bëri frais xaalis moo amul dernier moment la ñuy ñëw da ngay sonn doo am xaalis da ngay a da ngay nekk fi ba trois heures du matin nga dem boo xëyee doo mën a liggéey dara daanaka journée bi yi ah. euh, daal wane na quoi dafa yàgg waaw affaire yi neexul dul quoi lu néew nag ay fan dong des suñ diggante yi ak lii di feetu korité bi nga xamante ni nag dañ ci faral di nemmeeku nag ni ndaw ñi moom ñuy ëpp ñi nga xamante ñooy sol ay yére yu bees lii nag di kàddu yoo xamante ni nag ñoom tailleur ñoo ko yëkkati si jamono yi nga xamante ni moom xaalis amul yemul benn yoon rax ci dolli nag moom liggéey bi métti na lool ginnaaw nag ci ab doxandu bu yaatu boo xamante ni def nañ ko ci marché bu Médina Baye na lool rawatina ci waxtu bi nga xamante ci la ñu liggéey. Euh, korite gi sax nañuy desandi ba léegi waajtaay gi nag lépp luy jaay ca jabax dafa daal seer ñu gis ne nag lu jëm ba léegi ci soble ak pomme de terre gi moom kenn du ko laal ñi nga xam ne nag ñoo di waay jëfandikoo yi tamit nag ñu ngi koy jooytu ci seet bi nga xam ne moo nekk ci bi kàddu askan wi ñu teewlu ko ci micro Alim Badara Diop. yàlla def na moom loolu cherul wax dëgg yàlla parce que soble bi instant bi ñu koy jaay kilo 400 pomme de bi mu ngi jar seer moom saako bi ñu koy jaayee 13500 saako pomme de terre moom cherul wax dëgg yàlla xanaa bagage yu seer yi seer bi ak diwlin bu seer bi loolu daal moo seer moom ceeb diw suukar meew waaye ay soble pomme moom macha allah seerul parce que loolu xam nga fii lañ koy bayee loolu fan la la bi jaar wàññeeku tuuti rek tuuti rek lañ ci wàññi war na gën a mën a wàññeekoo ndax soble bi fii lañ ko bàyyee waaw soble mbay heure juróom la daan jar te fi mu ne kilo 400 dafa cher bagage yi cher non soble soble macha mu ngi wàcc mu ngi bu baax a baax 400 baax na 400 baax na de mu doon jar ay 500 yooyu waaw gënoon na fee tardé saako de jamono bi ñu ngi koy jaayee 9000 am na 8500 soble yi 8500 lay jar kilo bi 200 250 tonne kilo jar diwlin waxu nopp fi mu toll nii boo ko dugalee si marché doo génnee dara. soble kilo. 400 compote 500 kilo 400. bu waat 500. waaw ah, léegi bu nekkee saako bi. bu nekkee saako ñu bitim réew. Ah, mu ngoog yëglu na boppam xibaaru biti réew soxna Ngoné Ndiaye maa ngi lay nuyu. Euh, Mariama Ba euh, gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi nag jukki xabaaru bi ci xew yi ni ngi tey jii dañu koy doxee ca Pologne euh, foofee nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ñi ngi xamal ne jëm ci élection locale ya ñu fa doon amal nag coalition bi la di coalition libérale jamono ji nag moo féetee kaw ci wàññi goo xamee ne defagum nañu ko nag te mu tukkee ko ci mbañ gàcce ya waaye itam ci natt goo xamee ne tutasukaayu xibaar ya nekkee ci réew moomee def nañu ko. xabaar ci Brésil euh, la ñu jëm foofee nag ni ki euh, démb àttekat bile di Alexandre euh, de Moraes moom nag daal dinay ordonné maanaam daal daal di sàkku rek ngir ñu ibbi ab l'enquête jëmale ko nag ci Elon Musk muy nag ab milliardaire boo xamee ne dafa ubbi rek ab comptam ci jumtukaayu xarala yu yees yi di ca wax lu ko neex waaye itam nag di ca song ay kilifa bi ci mujj nag mi ngi ko teg rek ci kaw àttekat boobee di wax ne danu ko ger waaye itam nag dafa wor constitution bi ba tax na sax jaare ko ci jumtukaayu xarala yu yees yi mu doon sàkku ak ak démission am mbir moomee nag daal di jur ah, jamono ji ah, coow ca ah, réew ma waaye ci pàttali nag duguleet nag muy amal cong yu ni mel rek di ko teg koon ci ndoddoog justice su réew ma. xabaar yi. bitim réew ca euh, Mozambique euh, Mariama foofe nag lu tolloo ko juróom-ñeent fukk ci ay doomi aadama ñoo ñàkk seenu bakkan ci naufrage muy nag ab bato boo xamee ne dafa daal di euh, suux lu ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xamee ne l'autorité locale ya joxe nañu ko di wax ne itam bu weesoo juróom-ñeent fukk yooyee ñàkk seenu bakkan juróom ci doomi aadama yu duggoon ca bateau boobee nag nga xamee ni ma nga yeboon téeméer ak fanweer ñoom nag jot nañu leenay sowe xabaar bitim euh, ci jamono joo xamee ni euh, Russie moom am na ndimbal ak njàppale bay mën a amal ay congu euh, ci waxtu woowee nag moom njiitum réew bu Ukraine di Volodymyr Zelensky moom nag jamono ji dëgg mu la def ànd ak itam njàqare gu métti ba tax na ni ki démb ci dibeer bi nag mu daal di jibali kàddu doon wax na itam congrès bi bu fexewul nag ba ñoom ñu mën a jotee ci ndimbal la nga xamee ne l'Amérique digoon na leen ko mu ne nag boo moyuwulee daal ñoom nag mën nañuy perte kon guerre dox ci seen ak digganteeg Russie ci pàttali nag ndimbal loole nga xamee ne l'Amérique digoon na ko ko ah, naroon ko ci ab programme bu ñu tuddee programme d'assistance militaire et économique ah, koppar ya nag mi ngi tolloon rek ci ah, juróom benn fukki milliards dollars ci waxtu woowu itam Égypte ña nga ñuy xamal ne moom nag ibbiwaat na ay buntoom rek jëmale ko ca Caire ngir itam ñu daal di waxtaanee la tuddee ab trêve maanaam daal fexe ba ab diir ñu daal di wér ngànnaay yi ngir nag trêve boobee mën am la ñuy sàkku nag mooy kenn ku ci nekk ca wet ga nga féete itam nga daal di am loo bàyyi ñu amal trêve weccante koog bàyyi otage yee ñu euh, jële woon Hamas ci jamono joo xamee ne fekk na Israël moom jot a deltu ginnaaw ca genn wet euh, ca bët saalumu euh, bande de Gaza. xabaar yi bitim réew. lii gënoon a fës kon ci jukki xabaaru biti réew yi mbokk yi jàngeen jëfati bàkkam ba jib na xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay te duy bokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak football fukkeelu bu bekk euh, juróom-ñeent Ligue 1 AS dafa daan Gorée benn bal ci dara Génération Foot dafa daan Jaraaf benn bal ci dara Casa Sport ci kanamu Sonacos benn bal ci bu dee lu soxla Ligue 2 bi nag Amitié FC dafa daan NGB benn bal ci dara Wali daan ak Thiès FC ndam damul ndam dikul Demba Diop dafa ñàkk ci kanamu Oslo FA ñaari bal ci ñett AS Douane daan AJEL bu Tëngéej ñetti bal ci benn RS Yoff ñàkk ci kanamu DUC benn bal ci ñaar Ndiambour bu Louga daan CNEPS Excellence benn bal ci dara HLM daal di daan Kër Madior benn bal ci dara National 1 fukkeelu bëccëg beeg juróom-ñett Africa Foot dafa daan assure benn bal ci dara Africa Promo Foot Poro ko fekki benn bal ci dara ko fekki daan ko benn bal ci dara Étoile Lusitana Jeanne d'Arc bu Dakar moo ko fekki daan ko ñeenti bal ci dara Université bu Saint-Louis dafa daan AS Bambey ñaari bal ci dara ñu waxtaanee basketball juróom-ñeenteelu bëccëg bi national 1 ci jigéen ñi Jeanne bu Dakar dafa daan Jubéya 66 50 Duc dafa daan Mbour basket club 74 30 Bopp dafa daan Iseg basket club 82 38 juróomeelu bëccëg handball ci jigéen ñi nag Gaston Berger dafa ñàkk ci kanamu Toubacouta 22 24 ci ñi USRA

ñetti bal ci benn Union Berlin dafa ñàkk ci kanamu Bayer Leverkusen benn bal ci dara Heidenheim dafa daan Bayern Munich ñetti bal ci ñaar fanweeri bëccëg beeg benn calcio italien Milan AC daan Lecce ñetti bal ci dara Roma daan Lazio benn bal ci dara Empoli daan euh, Torino ñetti bal ci euh, ñaar ca Espagne moom ku final coupe du roi Copa del Rey moom nag euh, ñi waa Atlético Bilbao ñoo ko jël ci kanamu Mallorca mbokk yi waxtu wi jot na ñu sóob ak yéen ci seen rubrique corps ak tàggat yaram. Alfayda FM bi gën mooy nga def sport après la rupture du jeûne bu ñu dogee ba pare deux à trois heures ñu dogee ba pare fekk ne yow munoo ñàkk def sport bu la neexee tamit bul def sport ah toog si ramadan bi di julli di woor di lekk bu <laughs> ñoo xam ne bu ñu deful sport par bi c'est comme dañuy deux à trois heures après la rupture du jeûne mooy période idéale bi mais toujours le maître mot mooy bul dépasser sa capacité physique sportive parce que booy def sport d'intensité très élevé dafa am sport d'intensité modéré faible élevé très élevé mooy nga xam ne dañuy dépenser énormément d'énergie mooy li ñuy wax métabolique équivalent of the tax mooy euh, équivalent métabolique de la tâche bi ngay def xam booy def euh, sport dépense énergétique bi pour chaque individu mooy mètre plus mètre boobu élevé plus sa sport bi intense sport donc deux à trois heures après la rupture du defal sport mais moytul def sport d'intensité très très élevé et maître moo mooy déglu sa yaram boo sentiree ngay def sport ngay fës yi xibaaru tàggat yaram yi jaa jëf. Ah, bu ñu jugee nag ci tàggat yaram dañuy dem bëggali xol yi Kooru Gaye ak Bara Diop. Kooru Gaye moolum géej ci o Xaaj Ibrahim Gaye yëf yaa ngi xëccu di jëm ci jeex Xaaj Ibrahim di xëcc rek ngir mu jeex na ba yëf tàmbalee ba nëgë ni Xaaj Ibrahim mu ngi jeex ngir daj yëf waaye du benn ba sëx bu mu ne ciix o DG melokaanam neexu ko jéemee na nu ne seytaane gantal waaye du découragé ba mukk moo nga war ca koor ga tegu teguwaat fam tegoon di ñaan rek boole kooku ay astaxfirullah yu limu di dóor aoudu billahi min asheytaan rajim u xaaj ibrahim ñaan googu la waaye nag fa ko fàtte woon ne seytaane noonu les koy dàqee moo ngi ci biir rajo bi di liggéey liggéeyam léeg-léeg mu yeddaat boppam no buy soo ko toju doo ko jëriñu waaye it maladie soo ko wanewul du faju mais man sama employé yi nekk ci rajo bi yëpp amuñu problème ci koor gi mais kon man li ma dal la feebar la xaaj ibrahim moo ngi waxtaan waxtaan ak xelam est-ce que du ma demee hôpital naka muy xalaat rek mel ne leer bu ko gindi xamal ko ne sa feebar oustaz aka dindi du yëfu l'hôpital o xaaj ibrahim ca saa xelam daj ci cheikh mouhamad mun xamina cheikh ibrahim Niass xaritam ba moo ngi dëgg ay tànkam jubali lew na xaaj ibrahim munoon ngaa war daamaar rek waaye naka mu yegg naaj bi tàng jër mu gàpp reku ci ron sëriñ bi boole kooku toqali ay rankoñ <laughs> Niass boobu dimbalul du baax de li may mbugal la bu wóorul mbugal loolu bu doonee kaw dina métti de te dégg sa waajur ba waxoon ku ko léegi yaa fi ne sëriñ ma Cheikh Mouhamad mun xamina dama ne man xam nga mu uh, comprendre yàlla li mu wax dafa leer boo tayee dog ko kafaara war na la koor jaamu yàlla la naam mais sa wér-gu-yaram la montre bi sa montre bi léegi-léegi mu paan mais yow li ngay lekk 24 heures sur 24 7 sur 7 liy daw sa yaram yëpp benn weer a ne la nga noppal ko loolu sunu borom moo ñu gën xam lu baax la ñu bëggal o xaaj Ibrahim <laughs> sëriñ bi bul ma doggali li ngay wax yëpp dëgg la waaye dootul amati ñaanal ma de o Cheikh mun xamina ñaan gi mooy wax la dëgg soo paree mën nga jóg dem yàlla dina la sàmm waaye nag mburum koor bul ko fàttee génne borom ko gu ne moo koy génneel njabootam ak képp koo xam ne dundam daf la war deux kilogramme quarante wala sax deux kilo cinquante si ceeb wala dugub wala lu ëpp lu waa dëkk bi di jëfandikoo mais nag génne bi fexe nga génne ko ci bésu korite fàtte avant imam di julli su ko weesoo rek sarax la ko joxe sax benn bés avant laataa muy dem Cheikh Mouhamad mun xamina jox na ko yóbbal benn verre la ko defal ndox kastel ko ko ngir bu dogee mu raayoo ci guux ci ñetti guux DG gëmeewu ko naka mu yegsee rek di dugg kër ga tombeeg madame Gaye Hadj Ibrahim tey moom dara ngay sol lu ma jël moom bëriwut xoolal li ñaari jasineer 12 mètres muy 24 ak xale yeeg waa kër ga ku ne 3 mètres mu nekk 15 mètres daal yi moom pèse 50 mille bi mooy teg xam naa après laataa muy yeggali DG dellu siwaat sa <laughs> butéel bi sa butéel bi rega ma rega ma o Xaaj Ibrahim ndox maa ngi dem ca xel ma day yóbbaale ñaan gi tax na DG teg ca ñaari loxo yi raayo tànk ci guux ay guuxam li ci yéene kaay L'Obs Le Soleil ah, yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé lan bi ko Macky Sall fa suul rapportu OFNAC ya Allah Sud Quotidien moo ñu ko xamal laata nguuram gi di jeex moom ki fi nekkoon jiiti réew mi Macky Sall fa jëloon dogal def ñaari décret yoo xam ne fa indi ay coppite ba tax na fi mu toll nii lu ëpp fanweeru dossier ak ñeent ci ay nit ñoo xam ne fa ñoo def wàllu ger ñu dénk leen xalalu réew mi ñu pasar pasaree ko sàcc ci ay milliards yu bari gis nga dossier yooyu nga xam ne waa OFNAC yi fa ñoo épinglé ñu ñu joxoon ndomba tànk ci nguuru njiitëra Macky Sall léegi fi mu toll nii kenn mënta jël dossier yooyu yóbbu ñoo ñu ci yoon ba tax ñu mën a delloo alalu askan wi déedéet c'est fini yéene kaay bi na ñaari décret yam jëloon signé ko moo tax fi mu toll nii dossier OFNAC yooyu yëpp lépp doxee na fa tàbbi aljana seeni borom donte def nañ ay njombe bañ jàpp leen tey Bassirou Diomaye Faye a jël a topp a Dakar yéen a kaay ne fa ñoo ñaawlu nga xam ne Bassirou Diomaye Faye président bu Sénégal fa koo neenal dogal yi mu njiitëram Macky Sall jëloon moom i tamit laata nguuram gi di jeex ci fal ay magistrat waa waa PDS nee ñaawlu source a na ko hé faa bëgg na ngeen def ndànk gis ngeen décret boobu ñuy wax ne moom la président Bassirou Diomaye Faye jël décret ba léegi kenn gisagut ko de fañ ko war a gis nag ndax ñu mën a xam dogal ba jël décret ba fa def li ñuy wax abrogation wala fa def retrait ca dogal ya l'observateur ne man faa leen di wax gouvernement bu bees bu Ousmane Sonko bii am na ci loo xam ne man l'observateur faa ko rafetlu départ bu bon laa ko jàppee bokk na ca tere gi nga xam ne Ousmane Sonko tere na ko ne képp koo xam ne fa ngaa nekk maire wala député wala beneen dooba tànk suñ falee ministre fa ngay démissionné ndax boole ñaari poste jaaduwul l'observateur nee na loolu Sonko wax du lu te du loi fan la ko teg moom Sonko nekkul loi dogal boo jël fa war am légalité ñu ne déetewaay ba tey l'observateur mooy wax de nee na Abdourahmane Diouf bi ñu fal ministre ak giraas l'observateur ne jomaay fayit nag yen biñ ko yen fa diis ba jégg dayoo ndax li koy xaar ci ay jafe-jafe yu mu war a régler fa bari le réveil a kaay mel ni kuy wax l'observateur na ko gis nga yéen yéen waa RFM yéen a yem ndax gouvernement bees bi mu taxaw ci lañ dégg ay journalistes yu nekk RFM di wax naan général Jean Baptiste Tine nga xam ne moom lañ dénk ministre de l'intérieur su xew-xewu diine yi amee muy ay gàmm ak màggal yi ni mel moom moo war a dem teewal fa état du yooyu nga xam ne en tant que ñu yëngatu ci wàllu média waruñ koo wax ndax ñoom xanaa fa ñoo ne ki njëkk nekk président bu Sénégal nekkutoon jullit te terewut fa daan dem ci këru diine yi xew-xew bu amaan jëflante bi am diggante jullit ñi ak chrétien yi fa rafet kon kuy wax wax yu demee noonu fa ngaa war a xolaat li ngay wax ndax loolu rafetut point acte yéene kaay mel ni ku leen di tontu na gis nga ñii suñu waxantee dëgg seen gouvernement bii amul lu ci nit mën a sikkal dafa yàgg wax ne dogalu àtte askan bi moo ko moom waroo xol neex président àtte ko neex déedéet fa xam mbootaayu soxna yoo xam ne ñoom it fa ñoo ñaawlu nee nañ gouvernement bu bees bi ministère de la femme fañ koo dindi ba pare te jigéen ñi bëriwuñ ci ñeent rek la ña ko waxee ci le quotidien ak exclusif yéen kaay critique yéen kaay mel ni ko wax waaye yéen loolu ngeen di wax taxu koo bëri solo laas yéen kaay ne jomaay ak sonko kay ñoom fañ fee nekkul la magistrature boobu noonu bu mu fa neen ba yegg ca naññi ja mooy ne président Diomaye Faye fa la ñu nekkoon APR wala PDS wala beneen parti dem ba xam ne Diomaye mii mooy nekk président sénégalais moom lañ nar a woteel rek ñu gaaw dem fekk ji Diomaye transhumé léegi bi ñu nag ñoom ñooñu fañ doon espérer toog di xaar ñu fal leen ministre yéen bi waaye nee na Diomaye fële na ñoom ñëpp muy politiciens yi nga xam ne fa ñoo màgget ba xobi yàgg ci politique fa leen faa teg ni ñu bees tàq fal leen ay ministre ndax affaire bi nekkul ay séddoo de jàppale naa la gañe nga fa may fal ministre léegi nag ku gis lii soo bëggoon a dem léegi transhumé fa ngay toogaat de ndax soo demee doo neex le turbine yéen a kaay ne waaye nag terewul président Jomaay Faye ak premier ministre Ousmane Sonko fa ñoo dajee ak waa coalition Jomaay yi nga xamante ne ñoo ko jàppale ba mu falu fa ñoo dajog ñoom ci ab hôtel gërëm sant leen rafetlu seen taxawaay premier ministre Ousmane Sonko ci am waaye amul benn bu ci am ci ak tayeef fay sàkku ci yéen ñun ñëpp ñu nekk benn ci ginnaaw président Diomaye ngir li sénégalais xaar si ñun jafe-jafe yi ak li leen dig ñu mën koo jëfee ca libération premier ministre Ousmane Sonko fa leen na wax ne yéen leaders yii faa bëgg ngeen bañ xool seen intérêt lu tax faruñ ma ministre déedéet intérêt réew mi ak askan wi moom ngeen war a jiital te faa bëgg ngeen xam ne suñ adversaires yi mooy ñi nga xam waaye seen ngàndaay ñu ngi ci suñuy tànk baax na ca vox populi premier ministre fa wax ne amaguñ ndam de ndax responsabilité bu mag moo nekk suñu loxo vox populi na waaye ma ne dafaa jaaxle président Diomaye Faye moom fa wax ne démissionné na ca poste bañ ko joxoon ca Pastef léegi ba pare ñu gis ko mu dem fekke ji ndaje moo xam ne coalition Diomaye ñoo doon daje waaw loolu moom mooy lan waa PDS yi nag ñoom fa ñoo leeral seen ñàkk a bokk ci gouvernement bi fa ñoo wax lu leer nañu ñu ne ñoom bi ñuy dem di jàppale ji Diomaye ca coalition ba amutoon benn condition buñ ko joxoon déedéet Bachir Diawara moo wax li ni mel yor yor man faa leen di wax yéen sénégalais yi am na ñoo xam ne fal nañ leen ministre ci gouvernement bu bees bii seen xarxaram yi waaye ay ponkal lañu fa ñoo aay jàppal Abdourahmane Sarr ak Cheikh Diba ñooñu ay ngonk lañ ponkal lañ faatu Diouf ak ba jaañ ñooy motóoru secteur primaire bi Aliou Sall ak Chérif Diouf ay expert lañ ci diaspora bi bitim réew fa ñoo xarañ leer laas yéen a kaay moom fa mel ni ku xëy moom it di laajte ne ñi nga xam ne moom fa ñuy tux cigarette xanaa lu leen ko teree bàyyi yow fa ngay jël sa xaalis di jënd cigarette boo xam ne wóor na la baaxul sa wér-gu-yaram fa lay jox feebar te ñaareel fa lay mujj ray rek ba tax docteur Abdoul Aziz Kassé cancérologue la nee na gis nga tuxkati cigarette yi waxuma ñoom rey gi ñu rey seen bopp ndax cancer yi mu leen mën a jural waaye ñun sax ñi nga xam ne tuxuy sax fa ñuy reyaale kon cigarette fañ ko war a bàyyi baaxut fay fàtde enquête yéen moom fa xëy di ñu tàggee professeur Maguette Thiam moo nekkoon secrétaire général bu parti bi di PIT yéen a kaay bi fa wax na guy ga fa daanu ponkal la woon atum 1938 la gane àdduna ba atum 2024 la génn àdduna njiiti réew bu Sénégal Jomaay Fay fa koo jaale seede ci rafet ne njàngale moom ci deret ji la ne woon fa koo mënoon bëgg ko te formé na tàggat ay ponkal cadre yu bari Mankeur Njaay moom it fa koo seede ne Sénégal fa ñàkk ngonk ak ponkal mu mag libération moom fa ñoo xamal ne mbiru Seydina Mohamed Diop mooy ndaw la faatoon ca Pikine juróom benn policier yañ ca tegoon loxo nag hée tiisuma leen baaw jàllal nañ leen leen ca kaso ga de mandat dépôt moom lañ def juróom benn policier yooyu fañ leen a tuumaal na ñoom ñoo rey ndaw loolu ginnaaw buñ ko dóor rek méttital ak torture ak yeneen yi ni mel turbine yéen kaay moom fa xëy duñu xamal ne korite gi ñëw na ba noppi de gannaaw nar a yàq korite gi tax ba du neex mooy njëgu dund gi fa cher ba jéggi dayo lépp lu ñu dem ci cin donte kilifa yi ñuy dénk wàllu commerce bi xelu askan wi waaye li ñuy wax noonu dugg ci bopp kenn ndax li ñu gis mooy njëgu dund gi moom fa cher su fekkoon nag fa yomb su ko defee soos ndawal yàpp mën a neex boole ca euh, mbokk euh, fukk yu toftal benn la référence euh, xibaar yi ma feggoo woon ci ak koddu sekk keneme ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon teewlu xibaar yi kaddu gi doon bàyyeekoo ci studio Alioune Momar Lo ci immeuble Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye waay ñuy ñaan rek yàlla mi borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokk yi cant ak ngërëm ñal na leen woy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jërë ngeen jëf.